xam nga mbeur mbeur mom buñ la atteindre da ngay dangu atteindre nañ la bul taxaw na atteindre mystique ma fekk yow li ngay wax ne xolo ci sa diggante ak sa borom hmm. mais sa combat ak cité euh, gaay yi bari ñu doon wax bari wona ciow top bari wona ciow bari sa hmm. euh, ba tax am ñu ne cité daf la atteindre ma lay wax lay wax ci lool yow wa xam nga mbeur bu nekk ha ah, bo ne kenn musula atteindre ma rek fekk na yow xana do do do mu adama doomu adam bu mu mënta doon dañuy atteindre mystiquement Situ day atteindre sama morom mystiquement kon do buma atteindre ne warnama ma atteindre yaa ngi dégg fekk na atteindre buma atteindre waxuma la atteindre ma carrément mais atteindre am na pénétrer na ma. waaw ah. waaw xam nga mbër mbër buñ la atteindre da ngay nangu atteindre nañ la bul taxaw atteindre mystiquement fekk yow li ngay wax gën gi mu def sallallahu alayhi wa sallam sax mës nañ ko atteindre mystiquement yaa ngi dee kon ñun ay doomu aadama kese lañ lii dañuy foo nit ki bu ñu la atteindre da nga naan carrément mës nañ ma atteindre Siteu yaa ngi dégg Modou Lo mi wax nii mës na ma atteindre yaa ngi dégg Zos mi ñuy wax nii mës na ma atteindre euh, euh, kii euh, Yékini Junior mës na ma atteindre kon donc gars yi bu ñu taxoon ay mësuñu man mës nañ ma mës ma pénétrer ak doole sax du ndànk. waaw ah, Boy Niang ma attendre <laughs> mbëri dañuy attendre ñun ni niñ may jekkoo noon laal di jekkoo waaw peut-être ñoom dañul am ngëm-ngëm bi ne jekku nañ ma waaw. Ah. léegi léegi comme que comme que comme que euh, jël doo man bañu ma jël benn mbër bu ndaw bañu ma jël benn mbër yaa ngi dégg dafa fekk nafa fekk rek. na nga prouvé rek boo prouvé rek amu problème. kon tey la man bañ bañ. déggoo li ma la bu ci prouvé rek mu wóor na ne prouvé nga yow dugg nga ci cercle des VIP am ñoo fa daan jàppal ne pare naa